متقاضاها شيخ عمر الفوتي han kadi ko kanko hedditi e konngol ngol no wi fof mbaɗiren ɗon inchallah ɗum tan heddi Gracias. yàllaa ngi teel. ziyaara di leen sant bu baax di jiital ci cant bi nag njabootu lislaam yi nga xam ne ñoo fi teew ak waa ahlu bayt rasul ak këru diini ñëpp mu ngi leen di sant di sant njaboot sa Seydil Haaji Maalik bi ñëw fii ci xalifa bi yebal leen mu ngi sant waa kër Sëriñ Tuubaa xalifa bi sëñ Basiru Muntaqa moo leen yebal mu ngi sant njabootu Cheikh El Hadj Omar bi yëpp di boppam mu ngi sant itam waa Louga di leen gërëm ci taxawaay bi ni ngeen teeroo gan yi teral leen génn seen kër jox leen. toggal leen yàkkal leen lalal leen sëriñ bi mu leen ci sant di leen gërëm ndax bu dul woon waa Louga ziar bii sëriñ bi nee na buñ ko bëggee def fii dana wéy ne coono dina waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin dëkk yàlla boole waa Njaabu ñuy mu bëgg Cheikh Alhaji Omar bëgg Muntaqa Taha bëgg Thierno Bachir ba tax jàmm bu feebar si rek waa Louga ñoo la gàttal ñoo la teral sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla te di leen bàyyi ak yàlla ñu mën a fay yàlla lay yàlla fay boppam sëriñ bi nee na bu loolu passé mu ngi sant comité organisation bi nga xam ne ñoo taxawee ziar bi organisation bi ان عملية بين كادو ماسي جوحو الشيخ حجان مكي منتقى قاها بشيخ الحاج عمر مدهر بدل يتسفي سيدي البداية مجلل دي سنك دي ان دي نيان يلا يلا يلا فاي ليكو بكور يل يل يل دفكو تخاو جيتي دف جيت سخرو دي دف لو خمي لي كوين جوت كون سيدي مجلل دي سنك ان الكرم di leen ñaanal yéen njaboot gi yal na leen yàlla fay ba ci ci barke Cheikh El Hadj Omar nee na bu loolu passé mu ngi sant borom réew mi son excellence président de la république ndax président boppam jox na ko cër teral na ko yëg na ko màggal na ko nangu naa mu nangu nekk baay nee na moom teraanga boobu rek la doy na nit nag boo xamul noo koy def nangu la dafa tax moo tax Thierno nee na maa ngi sant président di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal sutura bu baax a baax a baax di sant gouvernement bi yëpp teraanga bi mu def ci kër Cheikh El Hadj def ko ci jamono bi mu toogee ci xilaafu Cheikh El Hadj Omar Thierno nee na loolu teraanga boobu suur na la. leneen li lépp lu mu def defal na ko diine bi defal na ko tariqa bi defal na ko bokk Thierno nee na maa ngi sant ministre de l'intérieur mi nga xam ni moom la président yebal fii te tey si suba ñëpp gis nañu président bu mu ñëwee indaale na ko mu ak moom waaye nag gis nga. di cérémonie bi jeexee dafa dellu yitte bi président am ci ziar bi yebalaat ko ci si mu ñëw ànd ak Cheikh Omar Anne ministre ànd ak maire Moustapha Diop ànd ak délégation gouvernement bi ñu ñëw jëmbalaat bis bi jëmbalaat ziar bi Thierno Bachir nee na lii teraanga la ak yëg la kon mu ngi ñaan monsieur le maire yal na leen yàlla fay boo demee nga jotal ko nuyoo ak cant. ak ngërëm ak ñaan bu doqee ko ci moom ak jullit yëpp ak njabootu Cheikh Alhaji Omar yéen ñu ngi lay ñaanal yàlla la président confié confiance bu mu am si yow ba def le ministre de l'intérieur ak yaakaar bi ak dal bi yàlla ko yàlla def lépp luy dal indi dal ci réew mi te yàlla nar ko jaarale sa loxo yàlla ci yàlla def jàmm def ci salaam def ci mu set def jëpp te alhamdulilah incha allah yaakaar na bu loolu passé خليفة بنيرة موجي سانت برسكي برسكي طول مجاي نكفي موجي لين سانت تلين كرم يوم يوم دفن درك تزيادي نح مام ليزا مام خبوكو وانا كو ام كتو دولك شيخ عمر محمد البشير تي اي ديغول مالا مو دوخ ني ييب برسك تاي تاي بو دك تي نيوغي تاي سا كاميرا فيغا مسام كون نك لولو سيرين بو موغي لين دي سانت di leen ñaanal yàlla yàlla barkeel météo di sant di sant itam Bougane Gueye Dany moom it na xarit la doom la ci kër gi macha allah ñëw na fekkee na bés bi fekkee na cérémonie bi sëriñ bi mu ngi koy sant mu ngi koy ñaanal bu loolu passé mu ngi sant gouverneur di sant préfet di sant sécurité bi macha allah benn problème amul ci ziar bi. amul kuñ fi jàpp amul kuñ fi dérosé amul kuñ fi yóbbu amul dégguñu fi dara benn dégât zéro dégât dañ ma wax ci ziar bi loolu nag bu amee loolu li ko waral mooy engagement du ministre de l'intérieur jël pour sécuriser Njaago sécuriser ziar bi sécuriser famille bi kon loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa presse bi Croix-Rouge eaux et forêts sapeurs-pompiers douane police gendarmerie yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di sant itam doomam cànq gi dafa ko jël ci njaboot gi yëpp moom Thierno Bachir moo mii way ji mu gàddul boppam sant bi di sant Cheikh Tidiane Mbacké Mountakha Tall ndax ku yokkul wàññi te nit bu ñu la dénkee mbir responsabilité la responsabilité la kon nag yàlla dimbale la ba liñ ko dénkoon defar na ko ba ñu yegsi fii amul lu des lu nu kàddu xalifa bi Cheikh Tidiane ñu ngi lay sant di la gërëm say mag say rakk say doom ñëpp ñu ngi lay sant yàlla yàlla. lii yàlla yàgg Thierno lii rek la bëgg ndax moom fa tabaarakallaahu li mu bëgg ñëpp ànd liggéeyal islam ñëpp ànd taxaw islam ñëpp ànd jëf benn buubu mooy ci buubu yàlla bi ñëpp mucc si yàlla ñu dimbalante yërëmante warmaalante sagalante kenn ku ne loo sa morom nga dimbale loolu la Thierno Mouhamadou Bachir santaane na ngeen jaamu yàlla na ngeen yàlla. na ngeen topp seen ay waajur na ngeen kenn ku ne bu bëgg a jàpp muy tariqa jëm ci yàlla Cheikh Mahamadou Bachir nee na nga may ci bu dëgër incha allahu boo ci jàppee yoon wi dana la yeggale ci yàlla yi ko sos ay nitu yàlla lañu ay waliyu lañu ñu yàlla gërëm ba yàlla wan leen lil xaam sos turuq yi ku ci jàppale moo incha allahu da nga موت حسن كباب فكل ولد يريد المريد لحضرة الله وبنيهما سوى انتماء إلى الجيلان أو انتماء إلى أحمد التجان أو لسواهما إن كل منقطع على السماء لم يبقي يوم يعلم الإنجيل كنا نجيبون بربو لبوبا نجيب خلي زلسكي سنين بمكنين جدا نجيب أم يارك أم تنكين أم تنفين لأم تنفين day am kilifa day am fu mu sukkandiku bu balaa loolu da ngeen warmaal seen waajur yi ngeen teral leen ngeen dimbali leen ngeen warmaal leen bu loolu passé ngeen wut nag wasiya bi leen di yegg ci yàlla ndax ñaanu sëriñ mu ngi tegu ci ñaanu waajur boobu su amul ngërëmal waajur teraloo leen warmaal leen sëriñ bi même bu dee fanaan al mënuñu la dara ndax ñoom mooy li mooy fondation mu ngi leen di dëkk yéen leen jeunesse bi da ngeen ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin warmaal seen kilifa sàmm seen diine sàmm seen ngor te liggéey te bàyyi waay ndax wax du faj dara liggéey ñàkk jëriñ sëriñ bi mu ngi leen ciy wax ngeen bàyyi ci xel bu baax bu loolu passé mu ngi sant délégation bi bàyyi ko Mali jikkee ko ci Alimatu Rasul ak surtout cheikh ahmad yi fa jóge yëpp si ceerno no yetto on no jaarno on no duwano on no weltono on fodde ko ngar ɗon ko omo ardina noon e yettore ceerno makko ceerno chérif mahamad ma wari ƴeew ko ceerno makko e ceerno nalla no nokku siri ko ɗi ceerno makko e ahmadou haadi mo ceerno haadi ahmad moutaka e denndaangal sumafaw e ummiɓe kuñakaari e ummiɓe ñoro e mani pop no tiitiri e ɓesgo hamme ñan ceerno yetto on no jaarno on yiɗde nde ba on yiɗi seydou cheikh oumar guel yiɗi nde lamin bachir yiɗi nde ceerno ahmad oumar yiɗi nde seydou cheikh oumar yiɗi ceerno moutaga yiɗi ceerno haaji yiɗi ɓesde cheikh oumar hawriɗen e yettade cheikh mahamadoul bachir haydara o gonɗani hen ceerno no duwonomo so jeehi jotti noon yo allah hokkuma cellal yo allah ɗow balɗe makko ko juuti o ɓooya ardade ɓesgu ngu no allah addiri on e jamɗi yo allah nawtin on noon jamɗa taw yow jàmm ngoppan mu ngi e jàmm sëriñ bi mu ngi sant Moustapha Diop bu baax maire bi ndax Moustapha Diop doom la ci kër gi lépp lu mu fi def ko war la nit nag nit dana la war ba pare doo ko def waaye jërëjëf ak ak ñaar jege ne lan it maa ngi ko jëfandoo ko dëgg sëriñ bi mu ngi lay sant di la gërëm yàlla yàlla dëgëral sa taxawaay lii waa lu nga am ci yow yaakaar ba jox la dëkk bi yàlla bu yàlla tasal yaakaar mu ngi gërëm cant nag ak gërëm. doomam di Cheikh Oumar Anne Cheikh Oumar Anne bu ko santee Cheikh Tall la sant bu ko gërëmee Cheikh Oumar Bachir la sant ndax mooy Cheikh Oumar Thierno Bachir Cheikh Cheikh Oumar mooy moom kon Cheikh Oumar Thierno Bachir no yettuma no jaarnoma aɗa waawno jeeyede galle he jeyɗa e ɗemɗo ɓe jeyɗa futantoɓe mbasa tan a darde nde dañɗa kono sa wi dañɗa nde ɗo darde ka jeeya hen jeyɗiɗa hen hoore ma a jeeyama hen a jeynama hen a jeyɗi hen hoore ma ɗum noon yo allah yoɓe ceerno duwanimama kala ko président resnuma yo allah jogono on an e wontiɓe ma éducation ɗum ndesɗeɗa l' éducation nande dirɗe ndax éducation moye tabax rewi haɗa wicci len len ndiyar ci lañ leen di jàngal ci lañ leen di tabbal ci la ñuy dugg xam li addina loolu buñ ko dénk responsabilité gi ñu ko diis kon ndaw ñii yàlla yor réew mi ëllëg ak ndar mi yow defar ci sa loxo lañ nekk yàlla la yàlla defal tawfiq ilaahi ceer na yëpp foofu ceerno yetti fof jaarnima fof onon pop onon fuutankoɓe yo allah yoɓan moƴƴere onon nootiɗon ko cheikh oumar saabu cheikh oumar wi hoore mum ko cheikh oumar fouti cheikh oumar fouti noon kala mbiyowo mbiɓe wiɓe wimami a yii hen hoore ma ɗum noon hayso neɗɗo heɓani neta ari lowtino onon aynaɓe ɓe onon remoɓe ɓe onon fulɓe ɓe onon awoɓe ɓe onon yeeyoɓe ɓe onon sodoɓe ɓe onon dartoɓe laabi onon mballa yimɓe ne gardi onon foti on jaabni on duwoni on o alana on hay hunde noon sona yo allah heɓon ɗum tan o jogani on allah kadi ko kañum yoɓata ceerno ko ɗum tan jogani on ala kalisro ko ala ɗumoro ko wiyata on tan ko yo allah yoɓ on te so yii ɗon o haaldirta ɗum ko ɓernde ɓuuɓde sabu o yii ko o ɓuuɓi ɓernde makko ɗum tagi o haala ɗum noon yo allah heɓ tabarakallahu gouverneur nag monsieur l' intérieur nga baal xam naa buñ la bu ñu tuddee ministre l' intérieur sax ñoom ñëpp yóbbaale nañ leen géew waaye nag lii daf mënta ñàkk gouverneur Bouyama ak préfet seen taxawaay ci ziar bi mucc na seede bi bi ñu def fii jël nañ ci engagement bu mag administration bi nekk ci dëkk bi bañ jógee fii dem Dakar lépp loo xam ni président santoon na ko nga taxaw ci sant ko gouverneur gouverneur sant ko préfet mention spéciale lépp jaar na yow sëriñ bi gis na ko sant na ko gërëm na ko ñaanal na ko si sa kanam nga nekk seede nga xam ni li taxoon ñu indi ko ci njaamu def na ko li taxoon ñu teg ko fi xoolal sëriñ bi sant du teel rek kër gi fi xew la li li mu defal fii loolu lay def ki rabbi sëriñ loolu lay def kër muti loolu lay def kër sëriñ Tuuba xaaral laay ñëpp lay def kon nag moom ndey di seex la jaaxaan lay tëdd kenn ku ne mën a nàmp kon monsieur le intérieur ministre de l'intérieur lii daal moo doon kàddu yi yoo xam ni du man maa ko wax sëriñ bi ci boppam moo ko wax Thierno Mouhamadou Bachir jaarale ko ci man mii doyal pour jotal ko mbooloo bu bu amee. lu ci baax lu ci yiw lu ci rafet lu ci mag ngeen xam ne jëmm ji la waaye bu amee lu ci nag man mii doyal na ndax ak taxawaayam ak bëgg-bëggam ak himmam fi mu toll ci yàlla kenn mënu koo xam da ngay jéemal kon nag sëriñ Mahamadul Habib sa baay sant na la gërëm na la mu ngi lay yóbbanti nuyoo ak ñaan yu sell yu mu tibbee ci xolam ci barke Muntaqa bi sa yal na ko yàlla def shifa defal shifa an taaman yàlla fukk boppam bu mu taxawaat naal bi mu naal ci kër maamam Cheikh Seydi El Hadji Malick ay magam ay baayam naaloon ko wàcc ko ci gannaawam mu téye ko ko mottaleeg sa bopp loolu daal da ma nga wax Thierno Bachir xam naa ni lii ngantu moo ko ndax wax na ma man sa baay Thierno Seydi Aboubacar wax ma la nag bi ma ànd moom Fuuta mu ne ma Idrissa ma ne ko daal mu ne ko tey jamono ji ma sama yaakaar ci àdduna ñu ngi nekk Gollé rek tellement mu dem maag moom ñuy añ ci nekk ñuy waxtaan ma ko waxee mu ne ma jox naa la li mu ne ma sama yaakaar ci àdduna Thierno Mouhamadou Bachir Kër Mouti kon la ma waxoon ku ko jeex. جيتي تيانا بشير كوتي تيانا بشير جيتي سيدي عبد البكر كان الدنيا تيانا محمد صالح تيانا الفاهي جا تيانا محمد يحيى نعم تيانا بشير يتي اون جاري اون دوني اون نجي حالا اون نمتي ماي مارو عرض اون تاكو يو اون دوني اون دنتالي جوبي بي تيانا اون تيانا جوبي يدي تيانا بشير حالا حالا اون دي كارب بوتو من فوق هاي دي بوتو من فوق تيانا بوتو من yii ɗin hettima ɗum yo allah yoɓan moƴƴere on dañi kadi fuuta yeweede saabu ceerno kala nde haawi haalat ɗum ma wi hayyatu ceerno ahmad samas hayyatu ceerno alfa ali thiam heddi ko ah, hunde wawa hedde jomde nde fof cheikh ibrahima sëriñ bi sant na la gërëm na بارك الله لكن لن نقدس تدقر سريبي نخ تاكي بو كيس دي أمكا بانتو بو تاك تاكي بالي تي أم لتر بني بني دي أم أدرس جوتا إبنوسا دلف سيدنا محمد تو جلت الشيخ علي أحمد التجاري تو دلت الشيخ الحاج عمر تو دلت الشيخ سيد الحاج مالي تو ahlu bayti rasul nekk fa jotaay boobu ba ñu leen laajalee la ñu war a jot ñu jot ko dana tax kulóor jotaay bi dana tax adresse bi mu am tampon mu am cachet lettre bi bu ñëwee kenn du ko ak moo ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni ko ah loolu jox naa la ci ko nag da ngeen ko wax ngeen dajale addiya yonente bi sallallahu alayhi wa